barke Seydina Muhammad gàmmu ren Abdou Aziz Ala Ndiaye li mu nar waxuñu ko bilaay barke alxuraan xool leen li mu def ndekki li à table lañ koy def li ngeen di gis ci restaurant yi gën a ngand ci àddina di ko gis ci cérémonie da gala yi gën a màgg ci moom la Abdou Aziz Ala Ndiaye di def ren ji bilaay barke alxuraan ku fi ndekki fekkul mbaa añ fekk na fi mbaa yërëm naa la guddi gàmmu Seydina Muhammad ku ñëwul kër Abdou Aziz Ala Ndiaye yërëm naa la bilaay barkaal xuraan Abdou nii la koy def seize yaa ngi nii tegaguñu ko waaye bilaay nii lañ koy defee nit ñi war taabal yi waykat yi taxawee nee di way Pape Malick Mbaye Sam Mbuub Abdou Aziz Abdou alxaaji dut kenn mbay ay waaye ku ñëwul ci guddi guddi gàmmu Abdou Aziz Ali naa la guddi gi c'est typiquement Cheikh Seydi Hadj gi c'est typiquement Seydina Mouhamad Abdou Aziz Ali Ndiaye su ma dàqee nag yóbbu ko Tiwaawan jël ceeb bi yóbbu ko Tiwaawan ak dëwlin ji jël xaaj bi séddale ko taalibe Seydi Hadji Mar yi Abdou Aziz Ala na nag guddi gi damay fas yéene tàntal Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam du ma ko defee ni ko nit ñi mii ne xam nu ma koy defee damay dem fekk cérémonie nag gala yu mag yi nga xamante ni artistes yi dañ ciy ay millions et des millions et moom laay indil sax Seydi Hadji Malick fii ci Tiwaawan ay taabal laa koy def teg sees yi buffet yi misu yi lépp loo xamante ni da nga ko gis ci restaurant yu mag yi Abdoulaye Alé Ndiaye ne dinaa ko indi ci guddi Seydina Mouhamad gi ay waay Ndiaye may sax seega ma laamin Fatim Bakar barke yonent bi sagal nga nu yàlla la yàlla sagal barke alxuraan ba ñu la amee ne ba kenn yebatunu kenn dootu nu wax ni Tiwaan boo fi ñëwee da takk bat su doog a lekk léegi dañ topp di la saraxu pour ma pour nga lekk Abdoulaye Alé Ndiaye duudoo yi noonu duud salor sama waa ji day di may kenn du fay ah Abdoulaye Alé Ndiaye yàlla nga téeméer at ci barke yonent bi maa la bëgg dama leen ko rusoon a wax yaa ma gën a ci àddina xool bâche bi bâche bi gis bu président Macky Sall day ñëw wala premier ministre nga ko daan gis waaw Abdoulaye Alioune Ndiaye na lépp loo daan gis Ndakaaru Abdoulaye Alioune Ndiaye indi na ko Tivaouane daaw Abdoulaye Alioune Ndiaye indil na nu ba indil nu marocain daaw Abdoulaye Alioune Ndiaye indil na nu ba indil nu égyptien ren Abdoulaye Alioune na xamante ni moom la ñuy bâchal président Macky Sall bu waree ñëw Tivaouane Abdoulaye Alioune Ndiaye indi na ko Tivaouane Cheikh Abdou Aziz Ala Ndiaye yàlla nga dund téeméeri ñaar fukk ci barke yonent bi sans ordonnance maa la bëgg ku la bañ yàlla dee ci barke yonent bi alaaj mi ngi jub ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf